Robert Jai, Robert Jai attaquant la Robert Jai, doo di doon Jai dox sa kaw sana Robert Jai, moom Sana eh. Robert Jai, kau bu kau, lay doon ndeysaan nyari ndaanaan ñaari technicien Robert day attaqué ndeysaan serap pression lay def si combat Robert waaw Robert Diop Lusana arbitre. arbitre yoon arbitre Mass Diop Lusana. waat na combat ba. waaw waaw Robert Ndiaye. bu bëre moom da ngay bëre ndax moom day bëre waaw waaw. ku ñëw mu ñëw mu ñëw moom Robert. waaw waaw. ata Konia 2 Vieux Manga Ndiaye ci ginnaaw. Konia 2 Vieux Manga Ndiaye ci ginnaaw. Robert Ndiaye 2 loolu Moussana waaye nee naa leen bu leen fàtte taxi dimanche woote waat na fii fii ci arène nationale da leen bëri aca Robert ak Ndiol Goussana waaw waaw Ndiol Goussana daan na daan na Ndiol Robert Ndiaye de waaw waaw ay Ndiol Ndiol daan na ko waaw waaw eh, Ndiol la Ndiola wala nga ne Ndiol Goussana Seny Bargny daan rek da da da da da tuy ci kaw. xale bi lañ kàmm macha allah. waaye Vieux Manga Ndiaye daan na koo ñaar. waaw waaw Seyni Bargny waaw waaw daanu wet waaw daanu wet waaw waaw Seyni. Camera, give me, don't give me, don't give me.